yéene kaay ne en xam ne nag président ba day Bougane Gueye Dany la lu ko raw fuuf ma ne quatre-vingt-dix-sept signature am nañ ko dékkoon day signature nga xam ne ñoom ñoo bokk gëm sa bopp day weddi gis bokk ja rendez-vous au sommet Bougane kaw tonton ci suuf yéen a kaa gi ne waaye Ousmane Sonko tamit day candidat waaw en tout cas place de l'Obélisque day la amalee day présentation libre solution Sonko la solution ma ne militant yi sympathisants yi day ak sénégalais yi nga xam ne sax seen yoon da caa nekkul waaw ma ne dikk nañu démb ca place de l'Obélisque la wax moom Ousmane Sonko moomee doomu bi ñoo na gi waaw daal dina jàkkaarloo nag ak ay journalistes yu xarañ lool lu mel ni Pape Cheikh Sylla Pape Alé Niang Maïmouna Ndour laaj yi nga xam laaj na ko ko lépp ca livre boobee Ousmane Sonko ci tribune yéene kaay ne xanaa xamoo leen ne man maay seul homme boo xam ne day dañ naan ma yow ci ban nga bokk ma ne man fépp laa bokk Léopold Sédar day ñëpp xamoon nañ ne chrétien la waaw waaye ay kilifa yu fort ñoo ko doon jàppale ci biir réew mi Ousmane Sonko yamu ca léeg-léeg ñu tuumaal ko ne rebelle la waa MFDC gi lée tuuma bu ne lañ ci bokk sobili ne leen daal laa di góogul mooy Ousmane Sonko franc-maçon la a tudd Malick waaw waaye Ousmane day ci tribune yéene kaay nee na day mooy xeex jëlee fi Macky Sall mi ne la day daal dinay day saafara sax lam bëgg tamit million te ay signature loolu dëgg Alaaji Malick Gakou day sonangol daa ako saanaar tribune yéene kaay ne ginnaaw njaareem ak Thiès grand le candidat de président Kolda ah, Kolda ngi nii suux na Kolda saay bu ñu xëyee muy daanaka amul ay gañe Macky Sall rek Alioune Fall ci l'observateur waaw nee na deuxième du fi am de ah. parce que président Macky premier tour lay gañe gaay eh way Samba Ousmane Sonko ne ko dëgg la bu la neexee moom jiital ci source a ne xanaa xamoon leen ne jour bi day bu huit ci guddi jotee vingt heures waaw Macky Sall ca lay taxaw ne gañe ak cinquante quatre pour cent génnee takk der ci kaw tali bi ne ku génn ñu ramasse ëppane en tout cas Aminata mi nga xam ne moom lañ jël day mu ci da parrainage ba ca Louga waaw Louga dee nga mer ba maana day taale laa la wax parce que Aminata Mbengue Ndiaye waaw waa affaire ñoo ko daaneel ci élection locale yi parrainage ah. bee koy yéegal at eh waay Samba Ali Baba Koumanaar lii nag ñu bëree bëri dañ doon yaakaar ne Moustapha Diop Mamour Diallo ak Mbéri Silla ah. ñooy jiite parrainage ba dee président Macky Sall moom def ko Aminata eh ma leen ndaw mi day dañ leen a barki démb ca pale ba de ne leen doo leen fa dugg ci ab xam ne day président Macky Sall moo doon dalal ndaw yu géejawaay yooyee ma ne la jeunes yi ànd la jóob jardin pale ba sax teguñu ko ba bas ngoom yor seenu kaddu ah nee na ñu dañoo ñëw ci nga xam ne moom la président Macky Sall doon dalal ndaw géejawaay waaw ñu neñu us tereñu ne duñ fa dugg te lii lépp Alioune Sall moo nekk sa ginnaaw rek Alioune Sall di de ñu ngi woo président Macky Sall ne kon ñi ànd mooy ñaareelu yoon ñu ñuy def nii loo ëpp nag tuuru trop c'est trop le soleil yéene kaay ne en président Macky Sall dee lu tolloo fukk ci ay délégués régionaux la teg Aminata Touré Mimi ci direct info waaw nee na opposition bi ci boppam kon ñoo fi bëgg indi attention boo xam ne amu fii mënoo dëkkee mars chaque jour organiser mars wa lii ndem l'exclusif yéene kaay ne en tout cas Macky Sall fukk ak ci ay coordonnateurs régionaux ñu ànd ak service pression lañ teg seen dodd de aller au charbon évidence yéene kay ne en tout cas délégué régionaux yooyee waaw Macky Sall xam nga lan lay dawa dépense joxe xaalis bu bëri ci campagne bi lay daw de parce que Macky xam ne na ñoom Ousmane Tanor Dieng alal ju bëree bëri la ñu toog xoolal ma waa APR yi xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ba dara nekkul dara ñu ne leen yéen tekkiwul leen dara ala poubelle jambalik ma Abdoulaye Diouf Sarr ngi ni lée ak Mariama Sarr Mor Ngom Mary Teuw Niane Moustapha Sekante Ablaye Sow ak ñeneen ak ñeneen sax dañ leen a sacrifié exclusive yéene kaay ne eh daal di koy largué xoolal tees yàq-yàqatee alalu askan Mamadou Lamine Diallo ci Dakar Times il faut arrêter Macky Sall Macky Sall mii lañ war a arrêter marti daali Mamadou Lamine Diallo ne waaw parce que nu gan dan yiri lekke na ko Mamadou Sese Soko doon defee ca Zaïre loolee ko Macky Sall di defee fii ci li mu yoreel entreprise yi PME PMI waaw ak docteur yi lay structure de santé mais ci njeexalu weeru 2018 bi mi ngi toll ci junni ci ay milliards mille milliards mandat suñu alal ji lée am ay famille yoo xam ne daal ñoo ne ko ci yéex daal di koy téye suñu pétrole bi gaz am ñu ko nangu ne ko ci yéex yi boog sobili ne waaye yow njiital chambre de commerce bu ndakaaru njaay jël bi nga xam ne intérim rek la waaw boobee ba léegi ni le mënul fexe kon ba mbir mi jeex aaya bimbal sa talaakurus mu nekk nag ab situation boo xam ne day war nañ nga ca di nga ca waaye itam jaarul yoon parce la muy jur tamit ca musiba alhamdulilah ah, ña fa nekkoon yëpp moom la ñu voté à ah, l'unanimité source année te Birahim Seck day wallaay xam nga ne du ca te du ca du leen may dara yéeni kaa gi ne forum day ña ngay bind union européenne de te boo sàgganee na contrat bi doxoon seen diggante kuréel gi njaboote meeru Sénégal nga xam ne juróomi téeméer ci ay millions la danañu ko dakkal de li indi coow li day docteur Binet Ndiaye ak Aline Sall njiital AMS a Aline Sall <laughs> waa ñii di laaj réew mi sax nag Librairie Papeterie d'Aradji, numéro 1, une fourniture scolaire, papeterie